yow mi nekk Sénégal wala nga nekk Afrique te bëgg a seetaan galaa bu mag bi war a am le 27 février Fallou Ndiaye organisé ko mu war dox ci diggante Ada Fass Jokkel Laurent Ndiago Bou Siteu Bulldozer Caatu Yaraax ak yeneen juróom-ñaari combat yu war a am ca bés ba mën ngaa jënd sa code ak sa Orange Money da ngay def dièse 144 dièse 5 étoile 346 360 étoile 1800 dièse nga daal di bés touche appel dal di dugal nag sa code secret di nga jot benn SMS bu la yónnee sa code lay yëgal ni code bi Sénégal dong la yem ak Afrique bu fekkee da nga nekk ci réew yu bokkul ci biir Afrique maanaam ci Europe bi ak li wër yow carte bancaire rek nga mën a utiliser wala Paypal da def 3W point seen affiche point nga daal di bës achat connexion par carte nga daal di topp nag tegtal yi ñu lay wan. ki nga xamante ni moom mooy Bulldozer ak Caatu Yaraax ndeysaan journée Ndiaye production gannaaw ba mu ñu mayee neuf combats yoo xamante ni yëpp ay espoir lañ ndeysaan Ada moom moo daan jokkeel grand combat Bulldozer moo ñu woon moo ñu Caatu Yaraax moo ñu woon ginnaaw ñaari xale yi ñu ngi leewtoo ñoom ñaar Caatu Yaraax oh Caatu Yaraax door na Bulldozer Caatu Yaraax Caatu Yaraax Bulldozer na leen la fu ñu féetoo. at bi wan kanam Caatu Yaraax moo ñu wan ginnaaw. Caatu Yaraax mën na dent bopp bi neex te xumuto dagan grand combat de la soirée di félicité Ada di encouragé Jokkel di félicité Laurent di encouragé Boussita di félicité Tori Junior di encouragé Jackson. di félicité Baba Diakhal di encouragé Kila Mansour ndeysaan xaaral ma ñëwaat ci combat bi caat yorox bi désert eh caat may na ko gauche droite yu dal bi désert caat yorox bi désert caat yorox bi désert caat yorox dajante nañ ñoom ñaar caat daje nañ waaw mën a bëree lii mooy combat ay waay combat yi neex na di combat yi neex na de Buldozer Caatu Yaraax Buldozer Caatu Yaraax Buldozer Caatu Yaraax ndeysaan Fallou Ndiaye a jaaraama lañ lay wax ndeysaan yaa ngi mel ku tëggu combat ay ay million ay ay million nga ci investir sax waaye mooy 100 million benn bër ndeysaan lamb nii la xale ñooy bëre ba naaw nii du ci am dara du ci am waaye jaatu yaraax mi ngi rokkas ci bi la zeer moo ko indi bu Malika Alioune Seye Junior jaatu yaraax wës jàmbaar Moussa Ndoye oh, daan na bi la zeer jaatu daan na ko jël bu rafet jaatu yaraax daan na ko da koo fàqat ci suuf waaw waaw oh waaye bi la seet mérito bu neex oh ndeysaan contesté am lu fa xew moom mu ne dafa contesté parce que yaa ko a yegg suuf yow loo wax. lu ko yoon mooy na jël nañ dem ci yoon. dafa ma song moom déclenché ko mbot. waaw moom sax moo njëkk a yegg nee nañu yeggandoo. yoon am na. en tout daal tànn naa ko na gëm yàlla. fan nga jëm. fi mu jëm. mooy yéen xam ngeen lamb. na ma gars yi non kenn. na ma may chance ma bëre ñoom. kon bu bëri sama morom pare naa ci. Eh, li fi amoon sànq mel ni demi final et eh, déglu waa eh waa mais li fi li fi mel ni demi final ak final. waaw amateur yaa ngi final lu ñu mu bëri. lu amateur wax nga wax. yow mi nekk Sénégal wala nga nekk Afrique te bëgg seetaan gala bu mag bi war a am le 27 février Fallou Ndiaye organisé ko mu war a dox ci diggante Ada Fass Jokkel Laurent Ndiago Bou Siteu Bulldozer Caatu Yaraax ak yeneen juróom-ñaari combat yu war a am ca bés ba mën ngaa jënd sa code ak sa Orange Money da ngay def dièse 144 dièse 5 étoile 346 360 étoile 1800 dièse nga daal di bés touche appel dal di dugal nag sa code secret di nga jot benn SMS bu la yónnee sa code lay yëgal ni code bi Sénégal dong la yem ak Afrique bu fekkee da nga nekk ci yeneeni réew yu bokkul ci biir Afrique maanaam ci Europe bi ak li ko wër yow carte bancaire rek nga mën a utiliser wala PayPal da ngay def 3W point seen affiche point com nga daal di bës achat ou connexion par carte bancaire nga daal di topp nag tegtal yi ñu lay wan